gàmmu gi ñëw na taalibe seex yaa ngi waaj ngir dem si yaari ji maam xalifa bay سيدي الحاج مالك دنا على عاصم ليلى الولادة إثبة إذا لم يكن نحو العرام حدولا بقى بغامغا نانيو دي جراو دبا نسيار سنبا بكر موي خليفة أبا صبي سيرين با بكر سيمالك رضي الله تعالى عنه jalal bilad dagajar ya burufu tak jalal zalum bawal wagbo tasqa luqiya lerab julina bur xët seenu seen ko muy mal kooku mooy sëriñ Babacar Si waaw mbooloo ya daan dikkal sunu yoneen baaw sunu demee ti waawan يزال لبيك مام خليفة موي برام أبونا أبو بكر وإن كان في الخبر بي بزرغنا إلى آخر الدهر سرين ما بكروا موي خلي مرزتني نواري بمالك أيوة نانو دم زيارة باب خليفة بيه yàlla jéggal la say bàkkaar waa xale nabi ñuy woy li sayduna muhammad bu gàmmu gi jotee ñun waa kër sayduna muhammad dootuñu am jot dootuñu nelaw ko ci waxal mu ni la tiwaan إلي أرجى وانسلا بتواوني تواون فيها اليمن للمتيامن moo tax ma ni ko gàmmu gi ñëw na taalibe see yaa ngi waaj ngir dem maam Khalifa Faye Sy gàmmu gi ñëw na taalibe yaa ngi waaj ngir dem ziyaare maam Khalifa Maysa gàmmu gi ñëw na taalibe se yaa ngi waaj ngir dem siyaare gi maam Khalifa Maysa gàmmu gi ñëw na taalibe Cheikh yaa ngi waaj ngir dem siyaare gi maam Khalifa Maysa gàmmu gi ñëw na taalibe se yaa ngi waaj Tiwaawan ngir leen ziyaare ji maam Xalifa Babacar Gamou gi ñëw Cheikh yaa ngi waaj ngir ziyaare ji Maam Xalifa Balisa bu ñu demee ba gàmmu ga dañu dem ca rawdu ba ziyaar seen Babacar mooy Xalifa Babacar gàmmu gi ñëw سخيان ديواي سرنا زيارتي مام خليفة بيزا ونجيت بابا كرلاي ونجليت الأمين أمين زيارة الأمين ويدن نين الله يرمك يوم سخيان ديواي سرنا زيارتي maam Khalifa Mbaye Sène ñu tuddee ca al amin dañu jëm ca zawiya ba siyaar Seydil Haaji mooy borom waaw wallaahi mu ngi joo talibe Cheikh yaa ngi waaj ngir def ziyaare ji maam Khalifa Baïse coow li coow li coow li maam Maodo doon na yónnee dañu dem ziyaare ko ngir am ca yàlla مقجابا طالب شخياك يوعد قدام زيارة مام خليفة بيسا وخلي نبي اللي يوم نوي بيجن من ميسر سريان نبي اللي نجدان جاكا مقجابا tari ba Cheikh yaa ngi waaj ngir dem ziyaara ji Maam Xalifa Mbaysa bu ñu jógee ca Zawiya ba dañu dem ca Manzur Si ziyaar borom daara ji mooy borom daara ji mu ngi joona tari ba Cheikh yaa ngi waaj ngir dem ziyaara ji Maam Xalifa Mbaysa gàmmu gi ñëw na xalil yaa ngi waaj ngir doon ziyaare gi maam xalifa waaw wallaay gàmmu gi gaaw xalifa soog yaa ngi waaj ngir doon ziyaare gi maam xalifa mbaysa bu ñu demee ba gàmmu ga dañu dem ca rawdu ba ziyaare sëñ Babacar mooy xalifa Babacar gàmmu gi gaaw waay ngir dem ziyaar ji maam Xalifa Mbay si bu ñu jógee ca Babacar nañu dem ca al amin ziyaare al amin mooy danay amin taalibe Seex yaa ngi waaj ngir dem ziyaar ji am xalifa Mbay Seen coow li coow li coow li am Maodo doon na yónnee dañu dem ko ziyaar ko ngir am ko ba mu ngi joona taalibe Seex yaa ngi waaj ngir dem ziyaar Assane Diop ak ku ne xam na Sëriñ Babacar Si ku ne xam na Al Amina ku ne xam na Assane Diop ak waa xale na bi ñoo Paw Moussa ak Boy Dondé ak Moustapha Al Amina Abdou Faye Babacar waaw biram ñi nga ñëpp ñu ngi ñaan alusaan yàlla na ngay maa dégg naa la buur yàlla samuloo la yonent bi وتلال ما مود الزان بيوم الخيام ما شاء الله كده فعل لولو يقولون دف fa tabarakallahu yóbbalu gàmm di ci bégal képp koo xamante ni yaa ngi sopp Seyduna Muhammad rawatina waa kër Seydal Haaji Malick di leen ziyaare bu baax ah di ah, sant itam suñu biram sono di ko ñaanal yal na yàlla dem ba may la studio bi gën a mag ci àdduna ci barki Serigne Babacar Sy di nuyu waa Xarala bi yëpp di leen wax seen yóbbalu gàmm moo ngi noonu fatabaar fakallahu macha allah